ñii kat wax dëgg yàlla suñu ay parents wala suñu ay yaay ñii ñoo la doon dëggal ba génération bi ba tey ñu leen gis ne yii li ñu doon def la passé bëgg nañ ko fekk tey boo ko indaatee tey am situation bii fi nekk nii da am loo xam ne chaque jour mën nga retaan loo nit euh, euh, mooy peut-être troisième bi si lay ñëwee parce que ñu may si waxtu fu mu toll nii moo ngi jëm jeex si loolu ñëw sànq ngi doon wax si gëdd gi nga xam ne nii artistes yi comédiens yi na leen ko jox war saa neex ñu gis koroog président Macky Sall avant muy dem di jox ay médailles wala sax di sargal ñu bëri ñi nga xam ne ñoo ngi nekk si wàllu culture mais gis ñu si yenn artistes yi gis ñu si gis ñu si euh, Gallo Thiel Gallo Thielo gis ñu si Sa Ndiogou gis ñu si Sa Neex pour pourquoi ak la moo waral lool la moo tax. amee ah, mais ci dernier décret yi fi Macky Sall bàyyi la ndax <laughs> moom bi muy dem dafa ne xaaral ma def lu ma neex signé lu ko neex mais ñun. Euh, man de man personnellement xawma ma kan. Mhm. mais man UNESCO daf ma reconnaître kon patrimoine mo euh, national vivant patrimoine mhm. moom moo ko signé. Mhm. UNESCO daal di koy ratifié. maanaam man patrimoine culturel vivant laa. j'ai fait plus de trente cinq ans de carrière comique. fin nguuru fin nguuru ab fin nguuru. Ablaye euh, <laughs> euh, maanaam début Abdou ci laa commencé. ok donc Abdou Diouf fi ma fekk. Ablaye Wade fi la ma fekk. Macky Sall fi la ma fekk. Mhm. Mhm. Diomaye fi la ma fekk donc quatre présidents yëpp. yàlla dimbali ma mu fekk ma fi. Mhm. mais ci trois yi ma li gum yëpp amul kenn koo xam ne mës naa ci jël sa subvention. wala sa décoration wala dara mais ñu doon décorer keroog noonu euh, xëy na moom Macky Sall dafa gis ne ñoom ñoo mérite ñu am loolu. mais bëgg leen xamal ne man en tant que doomu ancien combattant. sama papa da doon jël yooyu. fi mu ko doon def fonk gi mu ko fonkoon à part kaamin bu may gis mu teg ci kaw ak kurus yi ak ndoxu sam-sam yi deuxième étagère yi ay diplôme ay ay ay ay médaille te médaille ordre du mérite boobu moom la ñu jox ñoom Sadio Mané bien moom lañu joxoon ñoom Bokande mhm. parce que il faut nga dem ci toolu xare xare ko ba mu metti mhm. ba mu nàcc ba mu saf mhm. ñu ne yow mérité nga loolu parce que boo jëlee un militaire mais am na ay militaires invalides yoo xam ne amuñu amuñu loolu. te dañoo nekkoon sur le front. Ah, ñu dagg seen tànk wala ñàkk seen bakkan te joxuñu leen ordre mérite Lion. am na ñoo xam ne seen carrière defu sax vingt ans jox nañ leen ko te defuñu fi loo xam ne yaa ngi dégg lu tax ñu war koo mérité. Mm-hmm. c' est des décrets yoo xam ne le président l'a laissé ici bàyyi ko fii pour wax leen ne man lu ma neex laay def. te pourtant gis nañ ñu jox ko ñoo xam ne ni peut être Sénégal sax kenn mais wërsëg la seen wërsëg la bu dee dafa ànd ak xaalis. dafa ànd ak xaalis seen wërsëg la bu dee àndul la dara dañ leen ko takkal ak seen wërsëg la mais. mais ana mérite ana mais ëllëg sa doom bu la laajee papa yow loo doon def ba lii lii lan la. Mhm. war nga ko tegal lu tar loo xam ne dina ah papa yow de maam yow de yow mérite nga lii est-ce que dégg nga fi may waxee yow de mérite nga lii. Mhm. donc ñun ñi nga xam ne joxuñu ko amul benn comédien bu ñu ci reconnaître jox la ko. amul comédien wax ma sax ñun mais damay wax ñoo ñoom Père Lamine Ndiaye laay wax. ñoom Père Lamine njaay ak ñi fi nekkoon ay artist yu mag yoo xam ne génn nañu àdduna. bu dee sax benn la ñu ne au nom de tous les artistes yi gaañu. jël nañ médaille bi euh, jox leen ko. ah dem jox ko président Arcos moo xam ne kat euh, médaille bi ñii la. loolu sax dina sagal monde culturel bi waaye ay musiciens la ñu jël ay ñeneen ñoo xam ne kenn xamu leen. man gis naa ci ñoo xam ne kenn xamu leen. ils ont pas travaillé pour la nation ils ont travaillé pour une seule personne. kenn nañu liggéeyal kenn ñu tànn leen kenn xamu leen mais bu ñu gindoon liste bi. Mhm. ne diw soo gisee ñu jox ko ordre numéro du lion keroog bi Sénégal waree tiim bal ba moo way way bi tax bal ba duggul. yaa ngi dégg. Mhm. keroog ba Sénégal di xare lii lii lii lii am na ay artistes am na ay artistes yu ko mérité nag. parce que ils ont décroché ils mais dama ne choix bi ci boppam. soit président Macky Sall ko defee noonu rek. mooy tànn na ma support bu ma nekk président wala ma naa mhm. ah, def. ko ci <laughs> njekk mhm. defal leen ko nii. Mhm. mais ñooñu dañ ko mérité parce que leen ko defal. da ko def ci ni ko neex moom dañ ko mérité parce que ñun bu ma ci bokkoon tey du ma fi nekk di wax. dama naan ah eh, mais na ma <laughs> comme que bokkuma ci. su ma xoolee ñi ko am tey. ñaane leen ko mais dama ne ni ñu koy joxee moo dul yo moo ni leen ko joxee moo nekkul choix boo xam ne choix historique la président Diomaye Faye di Faye bi muy tànn ay ministre ñëw rek nga xool ko dañ lay xool laajte def enquête def enquête si yow xam sa cursus fan nga jaar ndax kii diplôme am war a xam-xamam mérite na ñu jox la poste ministre mais ordre mérite du lion man na sa papa en tant que ancien combattant demoon ci guerre xare ñu jox ko ci ay médaille bu France yooyu mm. fa ko fonkoon ak ba ma ko laajee fi mu jaar yëpp dama la ko papa lii sax dafa tuuti pour médaille. waaw franchement parce que boo fa desoon tey ñun médaille la ñuy gis. kon am na ñoo xam ne tey bu ñu leen ko joxee bu ñu tëddee sax bu ñu waruñu nelaw. kon si dernier décret Macky Sall la bokk rek. Mhm. te ñun euh, suñu suñu médaille. Mhm. ñu ngi xaar peuple bi joxoñ ñu. nañu yéen nañu bëgg. ngeen ñu takkal leen ko. te boobaa dañ koy takk ak fierté. Mhm. parce que on on est là pour. le peuple on change pas ñu on est des des hommes de de de l'armée maanaam ku ñëw dañuy nekk dans tes ordres liggéey pour euh, ñëpp nekk ci jàmm rawatina nag nouvelle ère bi mhm. yow gisoo dëkk bi jàmm ji fi am. moom laay wax <laughs> dëkk bi saa dafa commencé neex <laughs> léegi yaa ngi dox di for xaalis léegi dox di for xaalis non mais am na lu gars yi bàyyiwul xel de. mais lan la gaay yi bàyyiwul xel. ah lan la gars yi bàyyiwul xel. victoire Diomaye Faye bii nii. Mm. les gens yi bu ñu yëkkati seen loxo rek yaakaar naa ay militants ñoo leen votal de. du ay militants moo leen votal déedéet. nañ ay jinne wala ay rab. déedéet. ñan. victoire Diomaye Faye bii. waaw ah, nañ ci dugal seen loxo ñoo xam ne kenn yaakaaruñu woon seen loxo nga ci. waaw ah, mooy ñan. ñoo vote boo xam ne kenn xalaatu ko. mooy ñan man Sénégal yëpp fu mu toll yow la ñuy déglu ñan la. mooy ñi nga xam ne trois ans <laughs> ñu ngi ci mbedd bi trois ans ñu ngi ci mbedd mi trois ans deux mille vingt et un vingt deux vingt trois vingt quatre. ñoo ngi ci mbedd bi bu benn équipe ñëwee le soir am na équipe ñëw le matin trois ans ñuy taxaw. am na ku ci xeesoon dafa dem ba mu naat bi da ko mujj lakk ba mu ñuul kooku ni yow. kon kooku ndax ndax ndax monte garde. kon ñuul na ba ëpp. mais là vote militaire bi. c'était le même jour. waaw parce que léegi nag vote militaire lañ ko ànd la léegi ñu koy boobu noonu. fan la feeñ score boobu noonu tey quota boobu noonu quota boobu nga xam ne l'armée sénégalaise mhm. kenn du ne kan moo sañ a jël naan Mamadou Ndiaye armée 4 bulletin de votam nekku fi mu ngi fële ñoom ñëpp a mhm. ñoom ñëpp am carte parce que vote dafa bokk ci seen euh, devoir mhm. droit la boo xam ne c'est obligatoire waaye ñooñu seen vote fan lañ koy identifier ci victoire bu rëy bi fa lañ bokk nañ bokk de wax oh, dëgg. waruñu féete fenn nag mais bu ñu génnee summi seen tenue mhm. ba voté dafa feeñ pour wane na que ñoom xëy na sax génn bi ñu doon génn. Mhm. wax dëgg yàlla euh, dem nañ ba xam ne sonn nañu. te ñi ñuy dóoranteeg ak ñu ki seen ay faral nañu donc loolu il faut gars yi décortiquer ko pourcentage boobu noonu. Mhm. parce que bu jëkk nga 15 jours woon avant wala une semaine avant. ñoom ñoo njëkk voté ba pare. te daal ñu wax ne centre de vote camp bii déedéet doo ko dégg de. ñu ci population bi. da si feeñ bu baax a baax bokk na ci victoire explosive bi. bi nga xam ne moo yóbbu au delà de ce changement radical et triomphal et une nouvelle ère. boo xam ne Sénégal mu ngi koy dund. alors nga gis président Diomaye le 25 ñu daal di fal bu bees muy son excellence président Diomaye Diakhar Faye. mbégte boobu yow ba ngay wax sax dafa mel ni mbégte nga si àndal dafa mel nga yàqante woon dem <laughs> ba toog alors démb ñu gis wala barki démb sax mu jaar si kilifa diin yëpp jaar Touba jaar Tivaouane mm-hmm. mel ni beneen